asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar tey jii di aljuma 16 avril 2021 ñu door revue de presse bi dooree ko fi ci Sénégal waaye yow mii di door a teew ñu ngi lay ñaan nga abonné nga bës cloche de notification bi dañ koy doore ak record yéene kaay moom mi kat Idrissa Gana Gueye la xëy dalal ca xër bu njëkk wa laaj na ko nag question yu bëree bëri moom mii di Idrissa Gana Gueye waaye lañ ca mën a jàpp ñun wala lañ leen ca mën a wax mooy lan bañ ko journal yi laajee journalu record yéene kaay bañ ko laajee ne ko ñett ñi dàq football kan la wala attaquant yi dàq football kan ak kan la moom daal ñett la lim muy kan kii di Aubameyang ak Mbappé ak Neymar nee ñett ñi ñoo dàq football waaye Ligue Europa xam ngeen ne démb Man United qualifié na Rome qualifié na Villarreal qualifié na Arsenal qualifié na waaye ñooy tase ca demi-finale ya Man United mooy am AS Rome Villarreal mooy am kii di Arsenal waaye bu ñu fa jógee dañuy dem fële ca Espagne ci Madrid jël Marca yéene kaay Marca nee na intouchable kii di Real na Madrid ñooy wax nag nee na kii di Vinicius Junior ak kii di Rodrigo Goes ak kii di Federico Valverde ak Odegaard ñu abale fële ci Arsenal bu leen kenn laal jaayuñu tey jaayuñu suba waaye kii di Karim Benzema waa Real de Madrid ña nga bëgg mu yokk contrat am daanaka sax mbir ma yemb na waaye ñii di waa Granada démb dañoo daanu fële ca Manchester United waaye nag waa Espagne gépp nee nañ gàcceelu leen ñu de ndax wane ngeen fulla ak fayda naam daanu ngeen waaye wane ngeen fulla ak fayda Villarreal nag mooy jàkkaarloo ak Arsenal loolee mu ngi jëm ci demi-finale Ligue Europa bu ñu dañu jël AS yéene kaay moom mi ka nee na Zidane El Magu Magu de mooy loxuskat nee na Zidane mi est-ce que du day loxus ndax doomu France bii kat moom système bi muy teg daal daaneel na ci ay ponkal yu bëree bari naam sax équipe am bi bëri woon na ay absent ponkal moom ci mujj daan mooy kii di Jürgen Klopp ca Liverpool la mujj duma duma yu métti waaye nag Zidane ginne la de nee na fukk ak ñaari door mu toog yi mu am moom mii di Zidane fukk ak benn yëpp da koo gagné kii di Zinedine Zidane di doomu France. ñu jugee Madrid dem Catalogne ca Barcelone fekk fa sport sport kii di Neymar junior la dalal waaye nag waa Paris Saint-Germain ñooy wax ak moom nee nañ ko dee Neymar léttu ñu mbaa nga firi ñu yow ñu loo bëgg danga ñuy wax nag lu leer bu dee da ngay yokk nga yokk boo yokkul nga wax ñu waaye kii di Nasser Al-Khelaifi moom lenn képp la bëgg balaa ñuy jàkkaarloo ak Manchester City Neymar létti leen wala mu firi leen wax lu leer yokk wala mu bañ a yokk waaye kii di Ronald Koeman ma ngay préparé finalu suba bi de nee na nag système 4 3 la bëgg a indi loolee la wax moom mii di Ronald Koeman waaye fa jógee dañuy jël Mundo Deportivo moom mii kat Ronald Koeman sax moo fa nekk ma ngay xalaat de moom Ronald Koeman indi nag tactique bu bees muy lan 4-3-3 bi ñu xamee woon Barcelone te mu ko doon changé fan yi moom la bëgg a indiwaat te loolee nag nee na buy am da cey dugal Griezmann de Griezmann dama koy dugal mu départ waaye Piqué nag moom mbiram ya ma ngay doy waar ba léegi waaye ñi ngi xool daal nu ñuy def ak moom waaye kii di Ronald Koeman nee na ñëppay dem fële ca Séville la Cartuja foofa la finaal ba da amee nee na ñin ñëppay dem naam sax kii di Neto dafa blessé ak Ansu Fati waaye dañuy dem kenn képp moo dul dem mooy Coutinho te ma nga ca Brésil di faju moom mii di Coutinho ñu jigee Espagne dem Italie wàcc Rome jël de la Sport du Cœur et Dzeko nee na démb daal ngëm-ngëm moo leen ci génne ak kii di Eden Dzeko nee na ngénti gaa ngay wéy de ginnaaw mu daanelee kii di Ajax si Amsterdam moom mii di AS Rome léegi nag kenn la naan Fass jàkkaarloog moom muy kan kii di Manchester United la am ca demi-finale ya nee nañ nag dañoo bëgg a dem finale day waa Rome waaye kii di Dal Pino moom mii kat moo jiit Serie A ba juróom ñaari club ñu ngi koy rëbb ngir mu jóge fa nee nañ daal kii dañoo sonal lool lu ñu teg rek mu ne du nii waaye tamit xeex dina am de dimanche kan Gattuso ak Conte ñooy jàkkaarloo xawtaloo Lautaro Martinez ak kii di doomu Sénégal bi di Kalidou Koulibaly dinañ bëkkante dina doon jongante bu am solo ndax kii dafa bëgg a gën a teg loxoom ci scudetto bi muy Conte waaye kii di Gattuso dafa bëgg a qualifier ca Ligue des Champions ba kon nag dina mitti lool loolee ci dimanche bi lay am. ñu jugee Rome wàcc Turin jël Tuttosport moom mii kat nee na kii di Pirlo léegi moom mu ngi ci loxoy ni ñoom ñaar ñooy daje ci weekend bi Pirlo moom moo yor Juve Gasperini moo yor Atalanta Bergame nee nañ nag bu ko Atalanta dooree moom mii di Pirlo rek ëllëgam dina taq suuf lool ndax mën naa bañ a dem ca Ligue des champions ba waaye tamit jeexagul de nee na ñooy tase coupe coupe d'Italie de loolee le 19 lay am le 19 lay am kon jongante ñaari jongante yi daal ëllëgu Pirlo ci la nekk Gasperini daal ni ko journal bi waxee Pirlo mu ngi ci loxoy Gasperini loolu la journal bi wax waaye tamit nee nañ merci la Rome la Roma la Roma daal moo wallu ñëw di waa Italie ndax Europe ñoom képp ñoo fa des ñoo duma démb Ajax mën naa ne parce que ñoo ko éliminé le match nul la 1-1 la ñu def waaye kii di AS Rome mooy jàkkaarloo ak sa Manchester United loole mu ngi jëm ci demi-finale Ligue Europa. finale Juve ak Atalanta Bergame Atalanta moo koy dalal loolee le 19 mai lay am. jógee Turin wàcc Milan jël Gazzetta dello Sport. Florenzi pour conté conté mii daal Florenzi mooy mbégteem. nee na nag da koo bëgg a jënd indi ko ca Inter ndax moom dafa bëgg doomu italien di football ca club bu Italia. nee na nag ginnaaw bi ngeen gisee kii di Nicolo Barella ak ñeneen ak ñeneen ak Bastoni moom mii di Florenzi bëgg naa mu ñëw fii jongante ak man waaye ña ngay sant waa AS Rome de ñoom waa itali moo leen xettali nag ndax démb moom rek moo des ca Europe moom ma nga Ligue Europa mooy am demi-finale kii di sa Manchester United waaye ñii di waa Milan ña ngay waxtaan ak Donnarumma waaye waxtaan wa avancé wul dara nee nañ nag bu dee dafay dem moom mii kat noppi nañu ngir wax ak kan kii di Mike Maignan nekk fële ca liil di góolu liil moom lañ bëgg indi mu remplacer kii di Donnarumma kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan ngeen wéy di abonné di bës cloche de notification bi ñu ngi jéggalu di leen jaajëfal di leen béggee yéen ñëpp